بسم الله الرحمن الرحيم ci turu yàlla yërëmaakoon bi jaglewaakoon bi alhamdulillahi rabbil aalamiin sant gépp ñeel yàlla boroom àddina si arrahmaani rrahiim yërëmaakoon bi jagle waa kon bi maaliki yawmi di buuru bésu pénc ma iyaaka nacbudu wa iyaaka nastain yow dong la nuy jaamu te si yow dong la nuy sàkkoo ndimbal ihdina siraat almustaqim gindinu jëminu si yoon wu